ñu ngi am mbégte dalal tey euh, monsieur le ministre Thierno Lo jiite APD alliance pour la paix et le développement ak coalition Adiana monsieur le ministre. Fatou maa ngi di la remercier. alors euh, président de la république def na discours euh, samedi bi ñu weesu wax ak sénégalais yi ni mu ko baaxoo bu ñuy waajal feetu indépendance 3 avril bu jot discours boobu yow loo ci jàpp ci tënk. li may jàpp ci discours bi te itam très franchement dama koy wax sans position partisane man ku ma xam xam nga ni man flagornerie ak laudation suma affaire. lu may wax rek dafa fekk ma am fu ma ko teg lu ma ci gëm gis naa ne président Macky Sall ñaari discours yii mu mujj def mooy meilleur discours yoo xam ne mas na koo def ba mu nekkee président ak léegi parce que il a montré que président la république la boo xam ne bii nongu na ne serviteuru nit ñi la que dañ ko yebal fenn ne ko demal nga servir nongu na ne li mu yor aussi ñëpp ko bokk mu nonguwaat ne président bi nga xam ne bi la man moom laa gën a apprécier ci président yi mooy président bi nangoo déglu peuple am bu ñu demee ba lii xew ci biir réew mu am ñu yëngutu muy am pays yëpp lañ koy gis toog bi ak moom explosion populaire ay marches violentes kenn soxlawutu mais bu amee xam nga ban président moo bon ci loolu président buy xeex ak président bu dul déglu mais bu nangoo toog ne dégg naa leen bu nangoo toog ne xam naa ni sama jeunesse moo nekkoon ci biti bu nangoo toog ne man kat indi naa ay milliards yu bari defoon naa ko fi defoon naa ay yu bari amoon naa ambition bu mag de pour familiale couverture maladie universelle joxe ay fonds def DER ma def ko ba pare gis samay xale wàcc nekk ci mbedd mi mais war na ma mën a taxaw gëstu seet lu tax li ma def lépp ba pare mu am lii. mooy nangu na ne lim def doyul sax. nangu na ne li mu def doyul te loolu mooy yëfu nit parce que aucune œuvre humaine n'est parfaite yëfu yàlla rek moo moo moo moo mat te yàlla rek moo mat aussi nit mënta mat da ngay jéem. am lu baax am lu bon am lu des ak loo war a def soo nangoo déglu nangoo boole ñëpp rectifier yaa ngi ci yoon bi te loolu laa gis mu wone ko moo tax mu commencé di wax day def ay guichet unique moo tax xam naa ni war naa évaluer aussi li mu defoon ci ay milliards fu mu dugg war na koo seet ak itam lu tax ma def ko ba pare ak fan la àgg ak kan kan moo ko jot war na koo seet ci lu mu mën di def na ci boole waale loolu man maa ngi koy proposé mu defaale loolu. parce que munoo def ay milliards ba pare say milliards xamoo fu mu dugg il faut que mu war ko gëstu pour que mu war ko xam leneen li si ci dolleeku mooy président Macky Sall 450 milliards la joxe donc jël na très au sérieux problème bi au delà nga xam ni dans l long terme lañ ko war a mën a defee pour maîtriser ndox mi. jël canal du Baol indi ko defaraat ndox mi ba nit ñi mën a dem bay pour créer industrialisation affaire yooyu yëpp koo xam naa ni c'est dans le long terme la koy mën a def mais loolu noo ko sooraale xam ne maîtriser ndox pour delloo nit ñi ci àll ba pour fexe ba ñetti àll ba di liggéey war naa bokk ci ses premières priorités. li ci des nag mooy fi mu toll nii li mu yottu ko xaalis am na xale yu mer am na xale yu bëgg liggéey lu yomb rek la tout suite parce que bu jëlee les secteurs les corps de yi nekk secteur artisanat. jël mécaniciens yi yor seen i garage jël menuisier yi yor seen ay atelier jël coiffeuse yi yor seen ay affaire ku ci nekk ñu organiser la nga nekk léegi benn petite entreprise mën nañoo jumelé mécaniciens yi jogandoo jumelé ay menuisiers yi jogandoo ñu ubbi ay kii yu mag état bi aussi réguler ay affaire pour que ay otoom ñu koy jox mécaniciens yi ñu di ko réparer ay teenam mécaniciens yi di ko réparer buñ leen defalee ñu nekk ay petite moyenne entreprise ay GIE ak leen bañ boole seen doole ci fi ñu nekk nga commencé di leen financer yeneen xale yi nga xam ne bilee dañoo bëgg a def ay volaille ak affaire yooyu bu nu leen wutalee ay endroit yu baax ba ñëw visiter ko xool endroit bi mu am leen norme de sécurité yi nga xam mën nga fee dugal ay ganaar mu dem ñu jël ci suñu génie militaires yi ñu ñëw xool encadré xale yi accompagner leen bu ñu defee benn bande def ñaari bande def ñetti bande rek ñu bàyyi leen ñu demal seen bopp bu ñu dikkee suñu menuisier yi ñu def itam ñu encadré leen ñoom ñuy liggéey am ku leen di gérer fonds yi pour que ñu am machine yi ñu war a am pour def corps de bu nekk dama nga jox ko machine ba koy permettre ak dimbali ba nga koy que liggéey bi nga xam ne amoon na ko ci mbaarum maamam baayam di ko dem jaay jëlu ko ci baayam ba toog ba berool boppam moom moo xam fa mu bëgg nga dimbalee ko fa nga dem laaj ko foofu boo ko defee nga jox ko ressource encadré ko salon de coiffure nga jàppale menuisier nga jàppale jàppale mécanisien ah jàppale marchand ambulant bi nga xam ne bi da nga koy wutal cantine sédentarisé ko mu toog ñu commencé di ko dimbali moom chiffre d'affaires di yokk chiffre d'affaires am pour gën a mën a jaay loolu soo ko defee absorbé nga une bonne partie du chômage dans le Sénégal. waaw mais gis nañu ne nag euh, ci liñ nekkoon ak les jeunes diplômés qui sortent. mais il faut les aider à créer des petites des moyennes entreprises ay entreprises yu ndaw ñuy commencé di liggéey surtout yaay xoola ñun dañu am xoola ay docteurs en pharmacie yuy chômé am ay infirmiers yuy chômé mais ñooñu doo leen dimbali ñu yóbbu leen fële ci àll yi fële fële wutal ñu ñu fa ay cabinet ah commencé fa di def de la médecine ñu utiliser leen dimbali leen jox leen ay locaux jënd leen ay matériel bu ñu mënee jël benn dentist indil leen bu ñu mënee am der benn dermatologue indil leen ñu nekk ci village yi di liggéey même quartier même quartier yi am na ay quartier yoo xam nii da ngay toog am problème minuit guddi amoo foo jëm ah ngay dem hôpital ay affaire mais ne nañu créé ay médecins de nuit ay jeunes diplômés ñu jox leen ñu am oto am seen ay appareillage am seen truc nga xam ne bi bu guddee ku nekk mën nga am sa problème sa kër nga ni leen allo ñu taal seen oto ñëw mën nañoo signé ay contrat avec les maisons sax pour dikk di def le suivi familial mu nekk ay médecins de nuit di dox ci biir dëkk bi ay xalaat la ak jël koppar yi def ko fan ko war a def bu ñu ko defee ñu régler le problème du chômage on n'a di def ay remaniement ministère court court non non non c'est des développeurs ay nit yoo xam naka la ñuy defee nga jox leen moyens yi ba pare di leen évaluer gis nga dañu war a toog fii di évaluer nit ki bu ñu la dénkee projet dañu war a toog nga ñëw rendre compte ñu xool ñaata emploi nga def ak ñaata nga financé ñi nga def emploi ñëpp ñu dem répertorier ji leen dem dem xool leen contrôle boobu bu ñu ko doon def kuñ fi dénk dara di nga ko def ni nga ko war a defee justement ci koppar yooyu la ñuy wax wax nga ko sànq euh, président nee na li mu fi def ci ay milliare bëri na waaye xam na ne doyul tey itam euh, xëy na bu jaaroon fi mu war a jaar yëf yi dina dina tane est-ce que tey ñu ngi ci yoon bu baax bi di jël ay milliards rek di financer est-ce que loolu mooy Euh, yoon bu baax bi pour pour saafara affaire loolu mooy li ma la jëkk wax dama la ne Sénégal dañoo am benn feebar feebar boobu mooy dañoo manqué di def suivi ak évaluation mënoo toog di jëli milliards di ko dugal ca doo évaluer milliards yi nga jëkkoon joxe fan la nekk fan la jaar ak kan lan ko jox boo dul évaluer doo dul def évaluation xam nga lan ngay def da ngay jëkk rek di jël xaalis rek di ko sotti ci biir buuf. sa politique wuñu xaalis boobu tamit et j'espère que président dana tirer. conclusion ci loolu pour que même bu dee joxe xaalis mu def évaluation li mu doon jox ca ñu changé façon bi ñu koy defee politique moom mënul ñàkk ci li ñuy def nii parce que fii foo fi gis politique politicien boo fi gis bu fonds yi amee dana fexe fexe ba dajale ay goneem ñu jox leen ci dajale ay jigéenam ñu jox leen ci yooyu moom dina fi am mais ñii ñi ñii ñii politique ñu ñu war a jàppale lañu mais nañ jël xaalis bi jox ko ñi nga xam bi léegi danoo nekk ay mécaniciens cay politique yor seen garage. ñooñu dañ leen war a li parce que citoyen lañu jigéen ñi nga xam ne bi dañoo yor seen i atelier cay liggéey cay politique ay nit lan mais xaalis bi xamal nan nan lañ ko warut a jox warut a xam ne kii xoolal amul amul boutique amul atelier amul dara nga jox ko mu jënd ci iPhone mbaa nga jox ko mu jël ci géej gi mbaa nga jox ko mu takk ci gel ah ñooñu ñooñu ñooñu ñoo ñu mel noonu nag ñooy lekk xaalis bi ou bien nga jox koo xam ne kii wóor na ko ni fii muy dem su fi defee xaalis bi foofu du dox parce que kooku dafa laaj ñu former ko dafa laaj ñu encadrer ko ah donc xaalis boo koy jox nit dafa fekk nga koy encadrer génie militaire bii fi nekk nañ leen jël jël ay développeurs yoo xam dañ leen di fay ci xaalis bi ñu fay fay nit yoo xam ni ñoom ñooy nekk ñooy suivre les projets des jeunes di leen di leen teg ci yoon boo dee def volaille nee naa la booy def volaille ñu booy la nga gars du militaire mu ñëw seet yow ginaar yi fan nga koy defee naka nga koy defee gisa boo defee benn bande ñaari bande ñetti bande muy dox génie militaire bi mën na defi leneen parce que yow xam nga yoon yaa ngi dem soo yoree atelier menuiserie mais bu ñu defee fonds yi nañ la jëndal ay machine ba pare di la dimbali nag ngay liggéey correctement pour rembourser état bi li mu la nga xam ne moom la wax ne lay jox menuisier yi ci seen participation ci mobilier national bi président na vérifier na vérifier ci commande publique bi ba xam est-ce que menuisier yi lañ waxoon est-ce que administration bi jox na leen ko beneen bi des président li war a mën a gën a régler pour dimbali secteur menuiserie bi mais na dem fii léegi ci ministère yi ministère bu mu dugg du fa gis produit artisanal du ko fa fekk lu fay fekk ay meubles yu jóge Turquie ah, yu jóge France yu jóge feneen mais na imposer d' abord communauté rurale ministère ak fépp nañ fay def ay meubles yoo xam ni artisan sénégalais ñoo moom nee nañ commande publique bi jógewuñ ko sax respect yi dégg naa leen ñu naan ay ñi ngi defar ay meublier boo xam ne bi dañ ko bëgg a jël pour di ko yóbbu euh, ci biir ministère yi ci commande publique bi foofu mooy problème mu Sénégal est-ce que xam nga am na benn compétition bu ñu defoon jëloon benn architecte ak jël benn décorateur benn designer bu foor ba mu defal benn prototype de chambre à coucher benn prototype de salon de table à manger ba ñu artisan yi compétir gis nga tey jii bu président yi yónnee woon DMTA su demee foofu ñu ñu ne leen ana le mobilier national bi nga xam ne defoon nañ ko compétition bu def ci 100 millions anamu dañ ko ko woon ma nga toog foofu de xoola appliqué wuñu ko jox ko artisan yi de man bind naa ci wax naa ci bay bëgg a dee doxuñu defuñu ko pour que mobilier bu administration yi xam nga booy soog a nekk euh, ministre dañ lay jox 10 millions ne la demal nga jënd ci mobilier ci nga war a jënd ay salon ci nga war a jënd ay truc yooyu nag dañ ko waroon di dem di ko def ci mobilier bii nga xam ne bile moom la moom la defoon concours bi ba mu ba mu pare ba pare mm-hmm. dégg nga defuñu ko ñu ngi ni commandaat defaat la même chose bi ñu defoon moom la ñu soog defaat nii ba koy bëgg a lenn li ñàkk xam la ak ñàkk suivre nan dem DMT bu demee foofu bu ñu laajee waa DMTA ne leen indi leen kii bi defoon appel d'offre ñu def ci 100 millions ba def ci ay meubles yoo xam ne mënoon woon yóbbu ci ci ci ci bureau yi di ko def ci jardin public yi di ko def chambre à coucher yi ana meubles yooyu. mais président Macky Sall est-ce que ñu ko ñu koy jàppale dëgg-dëgg. mais dégg nga li un président mënut a xam lépp mënut a xam lépp ñi ñuy dénk affaire yi ñoo war a am mat goo xam ne gi bu ñu commencé un projet ñu ne léegi lancé leen benn concours ngeen lancé concours artisans yi composé. ba ñëw ba jox la ko yow DMTA yow la ñu wax ne yaa war a jënd salon yi pour di ko jox ministre yi bu njëkkee nga ni leen mi ngi ni jël leen mobilier bii nga xam ne loolu ko def mais nga nga am affaire bi denc ko DMTA ba pare di leen jox xaalis ñuy dem ay ay ay ay yeneen yi di jël foofu ay salon yu jóge Turquie ak yu jóge Chine di ko jël te yow li nga defar nu mi ngi nii te yow yaay direction du matériel et du transit administratif la DMTA tudd ñoom ñooy gérer lépp luy dem ci équipement ci ministère yi te si seen locaux yi ñu ngi lañ fa defaroon ba pare nañ ko weddi suñ demee nañ ko weddi lii may wax ni nañ ko weddi ñëwuñ ko weddi 100 millions architecte baa ngi fii xam naa ko mën na maa joxe turam suivre nañ ko waaw boo demee ci directeur de l'artisanat dana la ne ma nga DMTA waaw léegi comment se fait-il que DMTA bi nga xam ne bii moom la ñuy jëndaloo meuble yi mooy bàyyi ministre bi ministre bi dem fële ca salon ya tànn fa la ko neex mu ñëw jox ko bon de commande mu dem jël ko fa alors que matériel baa ngi fii boo xam bii dañ leen ko waroon équiper il faut que le président commence à équiper toutes les structures de l'administration par, des meublés, par un mobilier national. Il faut que le président commence a imposer à ses ministères que cadeaux de fin d'année yi ñuy joxe nañ koy def muy nekk ay produits de l'artisanat moo taxoon ma def benn galerie au niveau du ministère du tourisme ci suuf boobu maa ngi yor artisanat ak tourisme ma mettre en compétition les artisans ñuy defar ay produits di ko teg foofu président de la NIB Abdoulaye yi mu mujj voyagé dama ko daan duyal ci avion muy dem di ko joxe ci cadeau dama bëggoon chaque ministère équiper son ministère de produits de l'artisanat et que de fin d'année qu'on donne des produits de l'artisanat moo tax ma mettre leen en compétition pour que les artisans génn des objets qui ne sont pas lourds et qui sont meilleurs ba gis bi nee nii fii ne nii boo demee foofu galerie ba da nga nañ ko dara existé tout ça veut dire qu'on n'assure même pas la continuité de l'État ñu wax ci leneen mooy euh, ñàkk déggoo bi ci politique bi euh, fi mu ne nii dialogue politique bi daanaka naax saay na opposition bi génn na ci ndax nee na gouvernement bi wala état bi nanguwul organiser élection locale ci 2021 bi ñu nekk 2022 la ñu ko bëgg a def te ànd ñu ci est-ce que nekkul beneen lajj ci politique yi. xam nga man euh, gis nga dama ne woon ay débat wu yi di wax ay ay réforme fii code électoral ak code man dama noonu yooyu dootuma ci wax. parce que politiciens sénégalais dañoo war a bàyyi fo. xam nga ñoom dañuy foccat dañoo xam ñoom ñoom dañuy fo. parce que réforme yii ñu bëgg a def yépp mën nañ koo def ci ni mu gën a gaawee man su fekkee ne dama ne bu fekkee ne man dama ne dama wóolu sama bopp bu ñuy dem élection ma di leen di gagné mais man man la ne Fatou dafa réforme yi parce que boo defee réforme ba pare man ma gajal kon léegi waruñoo mën a am problème ci def ay réformes yoo xam ne ragaluñu tamit njuuj njaaj ci réforme yooyu déedéet bu fekkee ne attends bu ma la nee yow li yow yow supposons tey président Macky Sall mënoon toog opposition lu nu wax mu ni d'accord na parce que bu ñuy dem élection mu leen di gagné a organiser fuuf fi ñu toll nii ñii di yaakaar ne par exemple soo demee élection ci période bi parce que dëkk baa ngi doon tàkk ak affaire yooyu ñu yaakaar ne fi ne nii boo demoon élection pouvoir bi dañuy perte mm. c'est que ñoo xamuñu pouvoir Sénégal nu mu tëdd parce que ñi doon dox ci mbedd bi ay bandee nekk ci biir ñii problème yi Sonko la ñii ay nit lañu am lu leen naqari mais ñu ci mbedd mi di daw nekk ñu bari mi di lakk ay pneu ca ñooñu la leen di wu tax ñoom xam nañ ko donc population bii validé du population bi doon daw ci mbedd mi xam nga ma la bëgg expliquer kon bu ñu demoon léegi état bi moo leen gën a ëpp appareil ëpp leen ay moyens majorité présidentielle kon bu ñu demoon suba gannaaw suba mu gañe leen ñoom ñii ñëpp amul kenn ku ci pare pour dem ci élection parce que le temps que ñuy toog fii di def seen tour defaraat seen i appareil xool seen nit ñi ñu war a investir ñii ñii ñii bu ñuy reconduire xam nañ ñi ñuy reconduire léegi en une journée ah comme président Macky Sall mooy seen chef mooy toog tout de suite bind list yëpp génne ko gars yëpp dem battre campagne mu gañe leen donc wax bi du loolu bu nu toogee ñoom ne dañuy def dialogue ne dañuy defaraat fichier bi opposition bi wax ko ñoom ñëpp ñu d'accord ci dema dema dem ba nga xam ne bi gis nañ vingt 2021 bii kenn ci ñoom ku ci mun a def élection yi mun ta nekk parce que dafa am calendrier électoral bi date yu muy délai yu muy fixé mu am révision liste yi inscription yi ñu xoolaat ko loolu xaju fii te buñ ci duggoon di ko def fi ne nii xam nga opposition li ñu commencé di wax waaw yéen ngi labaj waaw yéen ngi labaj parce que dara doy ko ñu gis ne affaire bi sottiwul ñoom ñu commencé ndax yéen ngi labaj léegi nag ay ñaari weer daal ñaari weer warta mën a indi ay discussion ay décembre ak février loolu loolu loolu du wax loolu ñoom mënoon nañoo trouver benn consensus ki benn dat comme ñoom ñoo doon dialogue ba réformer fichier ba pare loolu moo gënoon a difficile mais date bi ay février ak ñaari weer kooku vraiment jarul ñuy nekk fii di xuloo am nañ problème yu ñu gën a ñor yu ñu war a gën a régler lu dul ay affaire ay benn weer nañ ko def décembre kii ne ko nañ ko def février mais xam nga loolu vraiment. fa wax ji kay mooy est-ce que na report bu njëkk ba ndax jaroon na état di dàq xam nga état yi di dàq njël bi ci ci élection ci njëlbeen toujours est-il que ils ont toujours des problèmes de réforme. ils ont toujours des problèmes qui tournent autour du fichier foo gisee élection gars yi reporté ko. coowul fichier ak coowul élection lañ nekk Sénégal dafa war a rompre ci loolu pays nii yi des ay France ak fenn doo leen dégg mukk ñu jëm élection jox suñu fichier bi suñu fichier bi yooyu lañu war a weesu xam nga réew su fekkee dañ koy jiite di nekk ay politiciens danga war a fexe ci période bi nga xam ne bi yaa ngi ci réew mi di fa bu buñ koy bind suba ci histoire Sénégal ñu ne yow kat ba nga fi sa taxawaay bii jekkoon na mais par parloo bi ak féete bi dafa bari léegi nga toog sax débattre nit ñi ngeen waxtaan yombut parce que suñ position par parloo mooy tax ba doon xool dëgg gi fi mu nekk man damay ànd ak président Macky bëgg yow mi ngay xool li neex président Macky Sall kii ne dafa contre président Macky bëgg ma fekk si ko ci moom ci contre am boobu mais àddina du doxe noonu man damay contre yow nga far yow nga contre mais ñu mën a toog waxtaan loo ma mën a convaincre ou bien waxtaan bi loo ci mën a tiire nga tiire ko ci te du tere ku nekk position ba mu toog fa toog ku ci convaincre sa morom kenn sa morom man laa fekk si mais nga ni rek man ni ma gisee noonu la ñëpp war a gisee su ma faree na ñëpp far du ma bëgg ku critiquer li président Macky Sall def yow tam boo ko contrer doo bëgg gis daraam lu baax doo bëgg dégg bëgg daraam lu baax ngay gis ku mel ni Thierno Lo bëgg yow li ngay wax mu fekk la ci loolu te moom fii mu la bëgg yóbbu nangu woo faa dem c'est ça le problème des Sénégalais. Sénégal noonu lañu mel de. bu ma contrer da ngay contre bu faree da ngay far. te looloo feeñ ci politique bi. moo tax bu ma nekkee opposition. loo def damay galgal su ma nekkee ci pouvoir yow tam loo def dama ci d'accord du ma la déglu mais comment se fait-il qu'on peut gérer un pays comme ça mais nit dafa war di débattre di fructifier nit yu joxe xalaatam nga seet la ci rafet nga jël ko lañ ci war a corriger nga corriger ko loo xam ne lii ñépp ko bokk war nañ koo mën a waxtaane et le problème du Sénégal mooy dañoo jël jëlul suñu intérêt général jiital ko ci suñu kanam ku ci nekk xam ne jikko jëf ji ngay jëf boo dee di nga ko layoo ak sa moroom et bu fekkoon ne politique dafa nekk loo xam ne lii day nga ni sax lii ko jaral na ma ko mais yow da toog fii di xëccoo poste nekk député xamoo ba xam ni ko fekkee yow da ngay toog fii nekk di wax naa ja naa gojj kii naa def kii lu bon te xamoo di nga ko fekkee loo xam ni lii xoolal dafa am fu muy yem lu nga ciy def da nga ko war a rafetal waaw na maîtriser woo ko da nga am na ñoo xam fii ñu ngi toog di wax naan février ak décembre kan moo leen wax ne dañu fekk février ak décembre kon nañuy def lu rafet loo xam ne day nekk njariñu askan wi ñun ñëpp ñu bokk ko ca bàyyi xiiroo bee xaajaloo beeg kërëb kërëb affaire yooyu nit ñi Sénégal ñëpp a yeew lu fi waay def moom la neex kon ku fi yaakaar ne yàgg gën a yeewu yi ba man leen a nax ak di def loo xam ne comprendre ko yow doo nit parce que réew moo xam ne dañoo toog ba am ñaari élection démocratique yoo xam ne def nañ ko ci coow jubul réew moo xam ne dañoo àgg ci seen seen xam seen bopp ba kenn mënatu leen wax ne leen wate leen fii ñu wate fa amul guide religieux comme mun di doon boo fi joxee ndigal ne watal kii kenn dootu déglu ndigal nit ki mooy seet fa ko neex mu jël aw kartam dem dugal ko fa boobu peuple nekk na peuple boo xam ne dafa avancé politicien bu toog nag comprendre rôle loolu dafa ne yow toll nañ ci jamono boo xam ne bii man ngay roomanaat ak di nax nit ñi ak di leen def la billaahi wal kitaab yaa ngi nax sa bopp te yow ñëpp la raw loolu la nit ñi war comprendre mm. fii kenn mënatu fee nax kenn mm-hmm. waaw jërëjëf monsieur le ministre Thierno Lo leader de euh, l'APD alliance pour la paix le développement jiite tamit coalition Àjjana amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu tey bi ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup